te ku xam ne ouvrier Sénégal li muy daj dafa metti euh, joxoon ñu suñ gëdd ñu góorgóorlu euh, def ay formation professionnelle am ñuy dimbale ci suñ biir liggéey bi ba nga xam ne ñu am nañ ay ay ay ay diplôme yoo xam ne nii war nañu mën nañoo engage sanc yu ne am na si ñoo xam ne nii amagul niveau ñu ngi leen jàpp leen di leen formé war nañ mën a am mutuelle de santé euh, war nañoo am assurance ku xam gis ne bâtiment yi yi si ne risque yi si nekk dafa bari waaw ah, batiment yaa ngi daanu loxo yi ñu ngi ci gaañu ñu ngi dee ay damm yëpp ngi ciy am risque la yëpp ngi ciy am ak naka la ñuy defee ba am ci marché yi nga xam ne li état bi mu ngi koy joxe te ñu ñuy ndawi Sénégal te mën koo liggéey ñi ak wax état bi pour mu jàppalañ ci ci marché yooyu ñu jot ci da ngay liggéey ci batiment te defoo formation xamoo ci batiment norme yi nga war a liggéeyee commerçant yi sax ay ay ay ay ay ay entrepreneur leen ay ay chef d'équipe leen loolu moo yàq métier mi moo tax waral jafe-jafe yi ouvrierage bi li ñu leen waroon li ñu leen war a jox joxul leen àq ji moom moo ci amatul ndax ouvrier bi léegi dafa yàqu ñoom ñooy gas ci naaj wi ñoom ñooy implanté ci naaj wi ñoom ñooy tabax ci naaj wi ñoom ñooy feraaye ci naaj wi ñooy defar ba pare ba kule dal bi ah ket gi ñëw nag yow mettre face ngay doog ko mën a dugg soo duggee nag ba pare yeneen corps d'état secondaire doog a ñëw doog a mën a dugg ci biir liggéey bi comme naan nga léegi ni leen di accompagner ñoom mooy nu ñuy duggee ci biir batiment ñoom déjà ni ñuy duggee mooy ah am na maçonnerie am na électricité am na plomberie expliquer leen lépp lu ñu war a liggéey lan ngeen ciy tànn bu ñu tànnee ba pare ah léegi nag ah ñu jàng leen na la ñuy évoluer ci biir chantier